match bi nii la Arsenal nii la koy def chaque jour nii la koy def di match kese c' est pas la première fois c' est pas la deuxième fois c' est pas la troisième fois Cheikh toujours mi ngi si lii lii dafa ñëw si waxtoom ñett indi nañ fi ay match mais ko. ñu ngi soo gis mbas nii mooy ba sa cinquante kon Kante Jula yàlla ko yàlla fay xolom jabaram boo xam ne mi ngi si ginnaaw mi ami jabar yàlla ko yàlla fay xolom ndax soo gisee jëkkër gi baax jabar bi moo tax da jëkkër mun na baax te feeñul jabar bu nëbb ko mais ñu ngi koy teg si loxom du koy gërëm du koy mas bi alhamdulilah rabbil alamin rek police dootu ramasse kenn ndax seexkat dina indi si mas du ëpp ne waa marché bi sax waaw si mas bi tey lu ñam te tey si mas alhamdulilah rabbil alamin seexkat lu mu indi si mas bi te ëpp ne waa marché bi kon dañuy léegi police do dootu ramas kenn dootu fay 3000 ndax cheikh indi na masque ñepp koy sol incha allah. waaw masque aussi baax na trop parce que kontaan nañ ci trop parce que masque indi masque indi pour aar yi parce que febe febe mom nek na lo xamne vraiment ken waru ko caaxaan gem nañ ko yit aussi amna moy ñu war def kunt lay katan ba li bañ ñoo dal. ñu ngi yëngatu ci sarati nak waaw ci gorgolu mo ñaan yalla aussi ngeen jàppale ñu waaw parce que ñun amuñ gën ko dul yéen. Cheikh Kanté ku ko xam. xam ko ci yëngu ci mbiru Fatick ci mbiru Sénégal sax lay wax parce que vraiment yu ci bëri def na ko fi ñëpp teg seen bët muy ubbi na fi ay fuur jël fi ay nit ñuy liggéey ay doomu Fatick jënd na fi ay Jakarta lépp lu waaye di yëngu daal Fatick gis nañ ci loxo Cheikh Kanté quoi wax dëgg yàlla li du guleet quoi ñu ngi koy remercier bu baax a baax a baax parce que ki nga xam ne dafa lay jox lu lay aat ci feebar kooku bëggul nga feebar képp ko xam ne communicateur tradition nga nga nek ci région de Fatick amoon nga ngërëm Cheikh Kanté parce que il a toujours appuyé les communicateurs traditionnels du masque rek dé gis nga masque deuxième la ci li Cheikh Kanté defal parce que avant euh, euh la maladie là bi muy soog a non seulement ceeb bi mu joxe ci Fatick c'est beaucoup de tonnes waye maladie bi dafa am ay communicateurs yo xamante dafa tollu fam tollu am xaalis mu la envoyer pour dimbal leen seen njaboot donc ñun les communicateurs traditionnels ñoo deseel Cheikh Kanté waye mom defal ñu dara je ne parle pas des communicateurs de la commune de Fatigue. Je parle des communicateurs de, région, de, de, de la région de Fatigue. Parce que partout dans la région, tout le département et partout, il faut que les communicateurs de la région fassent ce qu'ils font. Mais chacun d'entre eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils le demandent. Parce que vous savez, février est venu, il a des tonnes très très très ci ceeb man kenn mënu ko lim parce que l'élection léeg sax nit ñi naan ay 50 tonnes ay 60 tonnes mais Cheikh dina andi ay tonnes yoo xamante ne nit ñi sax duñ ko yëg ndax moom léeg-léeg muy def loo xam ne kenn du ko yëg donc nag yooyu toujours dañ ko war di ko siwal ndax li tax mooy Timou mu gëm rek mooy son excellent le président Macky Sall bu la mayee dara sax dina la Macky Sall mo la ko may donc loolu nak dañ ko koy nawé dañ ko koy grévé uniquement que les communicateurs traditionnels ñu ngi toujours ci ginnaaw Cheikh Kanté ñu ñaaneel nak fébrer mi nga am mo fi nek mu joggé fek jamm wa Cheikh Kanté daal ñun communicateurs yi noonu noonu ko deseen jugal waaye defal nañu lépp jox nañu masque yu bari bari les masques c'est pas la première fois dafa ñëk andi ay masque andi wat ay masque andi wat ay masque man duma tok dilim sax ndax li andi daa bëri lool kon nak vraiment cinquante liñ ko def mo di ñaanal té nak di ñaanal mok président de la république ñu jubo lol ndax li tax moy lepp lu mu def rek daf ko def ci président de la république kon Cheikh gatché nga la ma jërëjëf. jara ma docteur Cheikh lay jobé waaw waaw. hay président Macky Sall jaagit nii ya dolel président ya ko jappal li nga def ci mbas mi Sénégal xam nañu ko mm-hmm. ñun li ni ñaan yalla suñu borom mi fi yalla jëlé